sant yàlla alhamdulilah. décortiquer ma li nga sañse ah def sama voile brodé taxaw taxawaayu bàjjan. waaw jàppale sama doom ci bés bi. teewal sama mag ànd ak sama jabar. dooleel ko. jeeg bu baax booy ànd ak moom da ngay woote jàmm du dëgg. nga la paix blanc woote jàmm. tey gis nga ko ñuy takk macha allah réception la Coro. Mhm. ñu bàyyi la ko Pape Diouf. Mhm. ku xam Coro Mbar Ndiaye xam ko ci yéen. Mhm. xam ko seen kër xam ko ak Pape Diouf léppam. Pape juuf la yan kàddu yu seet waaw Coro moom euh, mënatuñu sax wax ci moom parce que Coro ku ko xam-xamee ko Pape juuf ku ko xam-xamee ko Bébé Baas ku ko xam-xamee ma ko man Ami Mané rek ko Pape Diouf ndax Coro yàlla boole na ma ak moom mu nekk sama xarit te lépp Pape juuf la ak Bébé Baas jabaram ndax ñoo ma booleek moom mu nekk nit ku baax nekk xale bu neex àndal nekk xale bu am fulla nekk xale bu am jom nangoo liggéey moo tax mu mën a ànd ak mag yu am fulla am fayda am jom ndax ñoom duñu ànd ak xale boo xam ne n'importe qui la li ma ko wax rek ne ko bës bu mel nii xamoon nga ne doo di ko am hmm. ci digg bi yaa loolu moom leer na ñëpp vraiment ñu jël papaam tamit Serigne Mbacké Ndiaye def lu fort ndax sëñ Mbacké Ndiaye ànd na fekk ku ne ku xam sëñ Mbacké Ndiaye xam ne mooy senegal mu bàyyi ñëpp jël Papa Diouf bàyyale ko doomam kon xam nga am na fu mu ko teg. loolu tamit foor ci ñun torop te yàquñu ci dara ndax mënoon na maye bopp ba pare rotti làmmiñ mais defu ko lépp daf ñu ko bàyyee coro nit ñi sax xanaa foog nañ ne ñun suñu famille la bokk du famille Ndiaye parce que dem nañ ba léegi benn lañ. man kër gii boo ma fi fekkee xew ak ñàkk xew da ngay foog ne ci biir kër gi laa dëkk munu ku la waxul ne la sa Pape Diouf laa bokkal doo ko xam Bébé Bass nekk suñu jabar nekk sama jabar man njabootee ñu boo ma fekkee ci biir kër gi danga naan moom laa bokkal bokkuma ak Pape Diouf dara mu uuf ñu nekk jigéen ju baax nekk jàmbaar nekk muñkat nekk jigéen bu suturaal jëkkëram xew bi ku ne xam ne ni mu demee bett nañu jékki-jékki daanu suñu kaw ñëpp xam nañ ni mu demee waaye tey am na nu ñu doon waajee xew bi dinañ xam ne Pape Diouf xew la na Bébé Bass xew la na te muy làngal doomam mais bànneex bi rek moo ëpp lépp donc Thioro moom mérito na lépp lii ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla suturaal ko ci sëyam juboole ko ak jëkkëram may ko ci njaboot gu barkeel ñu dund ba ñëpp di ci am turandoo Bébé Bass di am turandoo Pape Diouf di am turandoo mu indi ay seex rek di ma tegal man bàjjan bi sax mu turandoo loolu la ko ñëpp di ñaanal parce que Thioro mérito na lu nit ku baax la borom xol bu rafet la xale bu am jom xale bu bëgg ay waajuram man dama fekkee lu bari parce que man ak moom ñooy ànd guddeeg bëccëg subaa ngoon dara mosuñu tàqale mosuma joteeg coro mosuma weranteeg moom mosuma mm. am ci moom lu ma naqari bi ma dalee ànd ak moom ba tey aw ma ci benn naqar aw ma tamit lu ma ciy regretté waaw ñu ngi koy gën a ñaanal ko gën a ñaax mu góorgóorlu ci sa yam def na ndeyam jii rek ndax ba muy metti la woon ba tey yàlla ñëw te xamoon na ne yàlla dina ñëw macha allah xam naa sax exclusivité bi laa leen di joxaale yàlla may ko kër boppam oh. jëkkëram dugal ko ci kër gu baax te lépp moom la moo ko fa xaar moo ko fa muñ soo ko fa xaar woon du la fa fekk ku dugg sa biir kër xam ne dugg na ci biir kër hmm. baas pour la barki Serigne Fallou xamoon nga ne loolu di nga ko di nga fa am kër gi fu mu nekk soriwul dara mu ngi fii rek ci ruq yi man de li ma gis ci réseaux sociaux yi loolu kër la wala lan la gisagoo leen dara sax yéen bàyyi leen ba gis ngeen gisee ngeen xam ne gis ngeen jéeg bu baax loolu la mérito ndeysaan te billaax yeneen ak yeneen nag ci kanam mhm. dinañ dund ba mu Mouhamed Diouf ak ay rakk Mouhamed Diouf di def yu ëpp yooyu ba man mii di bàjjan bi sax dinaa ci am ak ñeneen ñi ci xaj ñëpp mais affiche bi lëmbe internet bi démb mooy 18 juin dakaar Arena mhm. waa 18 juin niñ daan waajalee bés yëpp rek waaw ndax euh, Pape Diouf moom ku ne xam na ko Euh, fexe na ba marqué empreinte ci réew mi donc événement mënatul dépasser Pape Diouf ba mu nekk loo xamante ne du ko waajee comme ni mu daan waaje yeneen événement yëpp ñu ngi ñaan yàlla fekkee ko ak jàmm ak salaam mu jaar fii yëpp daan jaar ci barke Seydina Mohamed kenn bañ a manqué. mais est-ce xam ngeen ne défi la ndax ni grand bi def barki démb premier janvier. waa moo tax ñu topp ci ginnaawam parce que ginnaaw Youssou Ndour Pape Diouf topp ci ginnaaw magam. loolu rek lañ ci bëgg jeex na tàkk yàlla nañ jaar foofu waa jeex na ñu ngi waaj waaw ngi noonu merci beaucoup merci jërëjëf